alhamdulillahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi jéggal na sunuy njuumte jéggal na sunuy rëcc-rëcc boole ñu ca mbooloo bay dem àjjana lu ko yomb la yàlla na ko yàlla defal noo ngi julli tey ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm ak i saxaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi mbokki julli di maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla mbokk yi mooy ndénkaaneel yàlla bi mu dénk ñi jiitu woon ak ñi mujj borom bi ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa yëgal ni dénkoon naa ña jiitu woon te amoo ni téere ma dénk la yow it ak sag njaboot ndénkaane lépp su ma ko résumé mooy an ittaqullah na ngeen ànd yéen ñépp ngeen ragal yàlla ndax ragal yàlla rek moom mooy jëriñ xutba tey bi mbokk yi mi ngi jëm ci risaalatun ila shabab muy une lettre adressée à la mooy jeunesse bi lay adressé lettre bi mu jëm ci ñoom ngir it nag ñu taxaw taxawaay bu mel ni bi yonent yàlla Huud taxawee woon ak yonent yépp ndax kat aw xeetam bi ñu tàmbalee di dugg ci guta di def lu dul noonu ndaw ña di ko def def leen a wax ni uballigukum risaalaati rabbi wa ana lakum naasixun amin mu ne ndaw ñi ak waa dëkk ba ne leen maa ngi leen di jottali ay kàdduy sama borom te mooy ay lettre am yu mu leen adressé waaye na ngeen ni bu leen ma jàppal benn xalaat arrière pensée wala lenn waaye ana lakum naasixun amin dama nekk rek ku leen di laaye biir te laaye biir mbokk yi dafa bokk ci liy dimbale xeet wi di dimbale société bi mbokk yow mi nga xam ni jeune nga te bu ñu waxee jeune mooy ki tàmbalee quinze ans jëm quarante ans deretam day tàng lu mu bëgg rek lay xam balaa muy àgg ci quarante ans di mature dana fekk lu bëri wees na ko waaye dootu ko mën a dab ndax perte na loo xam ne ci dundam daanaka mën nga ni deux quarts dundam yépp yàq na ko walla fooye na ko ndaw su tollee ci ndaw loo koy wax jafe na mu koy dégg ndax deretam dafay tàng dooleem dafay bari lu nekk rek foog na ni doole moo koy def néew na ndaw di demee xalaat wala muy demee xel waaye doole lay demee ndaw feeg mbëkkul li koy gaañ du arrière yow mi nga xam ni jullit nga nag nekk jeune dama la bëgg a yee ci kem fi sunu xam-xam toll bàyyi xel ni lettre bii ma lay adressé yow ak beneen ndawu jullit bu koy mënti dégg ci la bokk am nag cofeel lool ci yow ndax ba fii ma toll di wax ak yow daanaka bi ma génnee âge ndaw matul cinq boo ko génnee ci sama dund bi ma génnee âge ndaw ak léegi matul cinq ans kon bu la neexee boo calculer di nga mën a xam ban at nga may jox bu la bejjaaw bi nax nag bu mu la nax mukk ndax bejjaaw bi bind la bu yàlla def ci sunu kër ñun moo tax bëri na ñu may wooyee paa ñii di ma wooyee maam <laughs> bu ñu ñëwee sama kër ba xam réalité bi dinañ xam ni ndekk mbir mi di loolu jeune la comme yow su ma la dépassé ci cinq lay toll insha allah kon loolu bàyyi ko xel kon kiy wax ak yow ku xam li ngay dund la jaar ci lu bari pare nag pour conseiller mbokk yi lettre bii loxo bi ko bind ànd ak xol ak xel mi koy xalaat jubluwu ci rek lu dul lu lay jëriñ ci sa dund luy defar sa avenir moo tax ma bëgg nga ubbi sa xol ubbi sa xel ba jël li may wax ndax kat yaa ngi commencé guux métitu àdduna métitu dund subaak ngoon nga bëgg avancé am ay retard bëgg a tekki bëgg sa avenir defaru te xamal ni yow jeune bi amul dara lu gaaw ci yàq avenir ub ci bàkkaar ak jeunesse su bëggee yàq avenir am na sóobu ci ay bàkkaar moo xam jàng la moo xam liggéey la moo xam looy bëgg ëllëg bis boo duggee ci déegu bàkkaar yëgal ni ku amoon lu muy ree ci yow na jël soccam ree xam ni dana kekku ku amoon lu koy metti ci yow na tàmbalee jooy xam ni dana kekku ndax danga dugg ci géejug bàkkaar yàlla ma ci yàlla musal musal la ci xanaa xamoon ni bàkkaar ñi seen ndaw damm yàqu yépp fa la dépare iblis baal xel ne ku bëri pexe la ku bëri ay buum yu muy yeewee ku nekk la nit ñi ni ñu toll iblis yore na buum yu toll noonu xam nga ay xar boo leen di sàmm benn yeta leen di sàmm waaye iblis kenn ku nekk ci ñun xam na fi mu lay jaar ndax yàlla may na ko pouvoir mu mën a nekk ci yow di la gis te doo ko gis kon ndaw li li la mën a dimbale nga mucc ci iblis mooy nga delloo yàlla sa bopp dinaa la wax buum yi iblis yore du doon yépp nag waaye ñett yi ci gën a doy waar bu yaboo nga note ko ma wax la ko te loolu ñu ngi jóge ci kàddu ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ardah ali ibn abi talib ne buniyat fitnatu ala salaas النساء وهن فخر إبليس المنسوب والشراب وهو شفيع المرهف والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان mbokk yow ndaw la déglul Ali ibn Abi Talib li mu wax Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda nee na fitna yi àdduna yàqu-yàqu àdduna ci ñett la ko iblis tabax ñett la ko iblis tabax nee na bi jiitu mooy jigéen ndaw li ku yàqule rek ñu bari ci ñoom jigéen la lay yàqal parce que seen àdduna yépp jigéen la uti gel ànd ak moom mooy yàlla dugg ci caaxaan sa àdduna jàpp nga ni boo amul xale bu jigéen pour yow réussiroo te fekk xale bu jigéen boobu dafa ñëw pour yàqal la say réalité yàqal la sa avenir ndaw loo gis mu teel soow bu ci jigéen teel soow bu ci bëgg jigéen jàppal ni ndaw lii du réussir loolu moom na ko waat nga teg ko lan moo tax parce que dafa bakkale te iblis da jël moom la teg nag pont bi nekk diggante dund bi ak tàbbi safara benn pont moo fa nekk iblis buum bi mu fa def mu nekk pont bi mooy jigéen kon bépp jeune bu jël xelam samp ko ci xale yu jigéen yi samp ko ci bëgg-bëgg gi ne ci ñoom ne yëg ni kooku pare na pour tàdde ndax borom bi ne zuyyina linnaasi hubbu shahawaati min annisa borom bi ne dañoo taaral nit ñi bëgg bànneex ci ay jigéen kon boo dee xale bu góor jóg jógtewoo dara lu dul teel a nekk ci am ndoxaan di topp xale yu jigéen ñi di toog ci bopp koñ yi même bu dee da nga doon jàng jàppal ni naroo réussir su dee da nga doon liggéey jàppal ni naroo ci dara bu dee sa yaay da doon xaal ci yow dara mbaa sa papa dana ko ñàkk ndax dinga nga yëkkati loo war a jox sa papa wala sa yaay daal di koy jox benn xale bu jigéen kon pont bi nekk diggante àdduna ak safara buum boobu jigéen la beneen bi mooy asharab mooy drogue drogue mbokk yi bokk na ci liy loro jeunesse bi drogue dafa bari façon mi ngi tàmbalee ci bu ndaw bi ba ci bu mag bi bu ndaw bi nag mooy tux koo gis ci ndaw ñi mu tàmbalee tux commencé naa yàq santeem commencé naa yàq dundam ndax nit bu tàmbalee ci yàq santeem mooy carcasse la nar a doon au futur yaa ngi nekk ab jeune demagoo fenn ngay xëcc loo xam ne day lakk say poumon di ñuulal sa xol di yàq say veine mooy yow pare woo pour gudd fan nit bu naroon dund téeméeri at bu tàmbalee tux su tëxee vingt ans na yëg ni téeméeri atam dana manqué trente ans parce que commencé naa yàq ay cellules yi ci yaramam te daanaa defu ko lu dul cigarette cigarette moom nga xam ne mooy départ bi même ñi koy defar ci noonu yàlla yi bañ nañ ko ba dañ lay wax ni attention day rey waaw loo xam ni ki la koy jaay da lay wax ni da rey lan moo tax ngay fooyee sa xel ba di ko jël léegi-léegi àgg nañ ci société européen yi dem nañ ba ñu bépp société cigarette buy jaay cigarette na nga def ci cigarette bi abi dangereuse pour votre santé na nga ci def ni lii ma lay jaay kat lu baaxul la de waaw mais lu baaxul ala ñu téye ko waaye kii nga xam ni moo gën a porté ci moom mooy ndaw li koy def ndaw li ana lan lay sàggan ba yaakaar ni cigarette la war a jël économiquement cigarette day yàq sa alal day yàq sa santé day yàq sa biti day yàq sa biir képp ku ko tàmbalee nag bu ko waatal lu ne mën na koo def léegi saa bu ndaw tàmbalee tux yëgal ni bu ko waatal ci tuxum yàmba bu ko waatal ci tux ay drogue parce que lii mu tàmbale mooy buntu mbonteef kon yow ndaw li commencé nga sàmm loolu te nga bàyyi ko xel beneen bi nag su ndaw àggee nag ba léegi nag ci di di drogué wu di pikiiru di fóon di di di tux mooy ndaw loolu ndaw la loo xam ne ëllëg quartier bi dootu ko soxla quartier bi waxuma la quartier bi mais soxnaam sax dootu ko soxla waxuma la soxnaam mais ay doomam dañu koy xeeb lan moo tax parce que dafa nekk benn benn drogué dafa muté dundam changé ay valeur yàq yaramam yow ndaw li bëri na loo xam ne dafa jaar ci yàq yoonu ndaw mooy ak diinaaru wa dirham xanaa xamoo bëgg alal te nanguwoo tedd loolu ku mu nekk ci yow ci bunt yi rek nga jëm maanaam danga bëgg alal danga bëgg solu danga bëgg a génn da bëgg a yor téléphone bu cher da nga bëgg a sol dàll yu cher da nga bëgg a takk lonet yu cher te liggéey yoo amoo liggéey te sa bakkan loolu rek la bëgg ku nekk xam na lii muy jur lan lay jur lan lay jur <coughs> mooy dafay jur ci nga jël yëfu jàmbur dafay jur ci ngay agressé ay nit dafay jur ngay sàcc di toroxal di def ay mbir pour rien que rek benn téléphone iPhone X bi nga soxla 12 wala benn benn dàll bi nga soxla parce que léegi da nga nekk asiiru nafsak sa bakkan léegi mooy sa directeur li mu bëgg ngay def léegi nag lan ngay topp mooy clip yi jóge États-Unis di jóge Europe ñi nga xam ne ñooy def clip yooyu dàll yu cher ya ñuy sol di ko publicité pare nga pour sol ko pour jigéen ñi ne non booy Gilles xoola dàllam yi xoola portable bi xoola nangam mais ndaw loolu mooy ndaw luy jaamo bakkanam na moytu moo tax borom bi ne afara ayta man ittaxada ilahahu hawa wa adallahu allahu ala ilm wa xatama ala samcihi wa qalbihi wa jacala ala basarihi xishaawa fa man yahdihi min bacdi afala tadakkarun mbokk yi alquran téere bu yéeme la mbokk yi borom bi nee na yow yonent bi xanaa gisoo ndaw li wala waa ji nga xam ni dafa jël bànneexu bakkanam mu nekk njiitam man ittaxada nit ki jël bakkanam mu nekk jiitam bànneexu bakkanam mu nekk jiitam mu ne yàlla subhaanahu wa réeral ko ci xam-xamam tëjal ko ñett yi nga xam ni ku mu tëju ci yow pare nga pour jëm jahannam wal iyaadu billah ñetti mbir a ngi nii ku mu yàqu ci yow sa àdduna yàqu na sa àllaaxira yàqu na bi ci jiitu mooy wa xatama ala sam'i nopp yi dootul dégg man mi lay laaye biir dootul ma déglu noonu nga may jàppee parce que su ma la nee drogue baaxul sàcc baaxul da nga naan oustaz bi dafa bëri coow quoi nangam nangam am nay jaar jaar keneen keneen mooy sàcc léegi nopp yi dootoo nangoo dégg ku la naan déet defal lii même sa papa bi lay conseiller noonu nga koy def ci kër gi sa yaay bu taxawee di la conseiller noonu nga koy def léegi lan nga bëgg ki taxaw naa non non booy ko continuer waaye gaan yooyu ngay gëm mooy dootoo gëm dara lu dul kii wax li la labal mais kii fexe pour lu la génn ci lab bi dootoo ko def mbokk dootoo ko bëgg mën na àgg sax ci fu mu jaar nga jaar fa te def ñaata nit nga gis ñu ñàkk a jubóog seeni kilifa yoonu dëng rek moo ko indi seeni waajur nanguwul dëng te ñoom dëng la ñu nàmp loolu la ñu bëgg bis bu seen waajur nee déet ñu def seen papa noonu te ci papa yi la gën a bëri nag ñaata xale yi góor ñoo noonoo seeni baay fekk dara def ko lu dul la ñu bëgg a jaar la seen baay yi du nii ñu jël seen papa nag def ko benn ennemi boo xamante ni xool ko sax seen xol yi day bëgg nag am na ci ñu mën a àgg sax posone seen papa mbaa jam ko wal iyaadu bi képp koo xam ne sa xol tëj na mooy dootoo seet dootoo seetantal gis nga xol bu tëjoo dootoo seet dootoo seetantal wala iyaadu billah yàlla nañ ci yàlla musal moo tax dafa borom bi dafa wax ni responsabilité doomu aadama yowmal qiyaam yii la inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuula yowmal qiyaam ne la bir ni responsabilité bi nga gàddu sa bët am na ko sa xol am na ko sa xel am na ko gis nga doomu aadama bu taxawee ci kanamu yàlla day fekk lépp wees na rëccu rek lay nekkee al yawma la yanfau nadam kon yow ndaw li xippil say bët nga xool say nopp nga déglu borom bi ne wa jaxala ala basarihi gisaawa nee na ñu jël na benn muuraay def ko ci sa bët yow ndaw li dootoo gis dara dara dootoo ko gis li ngay gis rek mooy xaalis ak nu ma ko amee baax na xaalis jaral na ma rey nit xaalis jaral na ma tëb ay miir xaalis jaral na ma dem kaso kaso da doon brisé ñu tuddee ko maison d'arrêt et de correction mais léegi nit ki day nekk ci biir kaso bi di tëral ay plan yan la war a def fu génnee te ay mbokkam ñu ngi sonn pour génne ko mais moom mi ngi xalaat moom su génnee nan la war a defaat parce que ñam fay fekk du ñu ko éduquer ñu mel ni ñoom la fay fekk wëlbatiku nag tubaab yi di la nax di la wan ay film yoo xamante ni ki sàcc fan la jaar par exemple wan la ay prison break nga di ko seetaan bon fii la gars yi jaar dóor benn plan jaar fii jaar fee nax la dox ci sa bopp te li ñu la wax lu ñu programme la mais en réalité amul da nga ko seetaan mais facette yépp ay fenn la parce que kaso yu noonu nit mënu fa dugg évadé mënul nekk mais dañ lay wan ni sa xel war na mën a liggéey nga jaar fii nga jaar fii jaar nga commencé teseneloo sa bopp nga ne naa taxaw nekk benn Michael naa taxaw nekk benn Jack Bauer naa taxaw nekk benn nangam parce que yow léegi dañ la dofloo gisatoo àdduna bi li ngay gis mooy dollar euro loolu ngay gis nga jaay sa dund wallahi ladi laa ilaha gayru tur bii may tudd ku dëkk caaroy xam nga ko kenn ki du ma ko tudd ndax mi ngi dund jaar na ci sama école jàngal naa dafa am ndaw loo xamante ni dafa teel a jóg dugg ci agression bi ñeme di def musiba mais su génnee ba sonn non ñëppay jommi mais booy bi fu muy jëlee yi moto yi gën a cher jamono boobu ay teem ak sa génn ba ay yemaxaamoo xewoon da koy génn mais bi mu nekkee ci loolu tisbaar bi ñu koy rey ñu ngi ko reyee buntu sama jàkk fu may jiitee fa lañ ko reyee wallahi ladi laa ilaha gayru xoola ndaw ñi lu ñu corate daggate ko mu tëdd gaa yi daw ñëw yàlla moo dogal mu fekk ma ba bi ñëwee am na ko ñu rey fee ñu daw ñu ko fekkee mi ngi naan ni di génn ci loxoom benn jaaro benn jaaro xam nga lu mujj wax mooy eh, jaaro bi joxal ma ko diw sama doom bu juddoo mu takkal ko fa te doom jooju juru ko ci yoon xoola ma ndaw lu mel nii jékki ah gërëyee ñu ngi dee lii la wax ak dee génnee mi ngi dee wala iyaazu billah lu jooylu la du reetaan la keroog dama dugg ci biir jàkka gi toog sama adduna tukki ndaw lu mel ni ñëpp gisoon ko mais agression la def métier di yabal ay nit di gor ay nit di cor ay nit nekk xale bu ndaw kenn ki tey fan la mujj day raam wallahi day lekk ay desiti fas li fas yi di génne da koy lekk ku toog fii dëkk caarooy xam nga li may wax wallahi ladi la ilaha gayruhu wallahi ladi laa ilaha gayruhu xale la ñoo dëkkoon bokkoon koñ jaar na sama école presque ay six mois wallahi ladi laa ilaha gayru alku bi mu alku tey jii day raam day fekk ay neefare fas di ko lekk nii wal iyaadu billah ana lan moo jaar lii ci kaw dund yow ndaw li xipbil nga xool ana ban agresseur nga gis mu tekki kan kan nga gis mu avancé ci ñuy def lu bon ana ban drogué nga gis mu tekki ana kan nga gis ci nekk ci yu yi mu tekki loolu amul wallahi yéen ndaw ñi wallahi yéen ndaw ñi wallahi vous êtes pris en wallahi dañ leen a jàpp otage maa ngi giñ ci borom asamaan ak dañ leen a jàpp otage tey actuellement dañ leen a endormir jeunesse bi dañ leen a endormir di leen nelawloo afiqu ya shabab ndaw ndaw ñi yeewu leen yéen a ngi nelaw de yeewu leen mata tabnuuna mujtamaakum kañ ngeen di refaire defaraat seen société kañ la defar Sénégal société bu mel nii jeunesse bu mel nii nga xam ni soixante dix pour cent ci Sénégal ay jeunes lañ soixante dix pour cent ci Sénégal ay jeunes lañ lu jafe ci àdduna bi lu jafe Europe amatul ko ko am Amérique amatul ku ko am ñun Afrique ñoo defe ay jeunes ay jeunes yoo xam ni xale lañ loolu moo jommal tubaab bi moo ko tiital mu nekk ci ay problème pourquoi ngeen di nelaw yéen jeunesse bi tubaab yi ak seeni fexe nax leen ci ñeenti mbir ñetti yi ëpp solo dinaa ci ñëw ci ñeenti mbir lañ leen nax wallahi yéen jeunes yi vous êtes devenus leen xel ñu baal ma jublu ma ñu seen xel yi du xalaat lan moo tax du xalaat tey lu ñu leen sport sport baax na mais buntu nax la football baax na mais buntu nax lañ leen indil ngeen jël ko tey mu nekk loo xamante ni wallahi kuratul qadam wa axawatiha moom lañ lay indil bal ballon ak ay mbokkam ndax ci jeunesse bi yépp mbokk yi tey lan la football indi indil nañu ay nawetaan suñuy ndaw creuser seen bopp yépp ci loolu ñu indi leen ay ligue des champions ñi doon jàng dara tu noo jàng talaata àllarba ñu ngi ci télé yi ba vingt heures une heures di seetaan ñuy fayiku seeni prime seen prime rek mën na laa dundal yàgg sa papa prime mu benn joueur ci ñuy football ligue des champions mën na laa dundal yàgg sa papa nga bëgg a perdre sa temps dof na ci télé yi diw gane na diw dóor na ko rey naa ko rey na ma nangam nangam xoolal ki def loolu dem na sangu ji toog néegam jënd oto otoom yi bu rafet lay dawal nga di ko seetaan ci dof te xaw ma yow kañ ngay dawal R4 parce que yaa ngi tardel sa bopp ci seetaan yu lay tardel kañ ngay avancé kañ. yow jeunesse bi yaa ngi neew beneen bi nag ni ñu leen naxee génn ay star yoo xamante ni li ñuy fay ku ci xaalis bëri na jeunes yëpp jóg nag ne dañoo war a pare nag pour nekk ay Messi ay Ronaldo ay nangam loolu la ñu pare quoi pour pour nekk benn milliardaire néew ma mënul nekk mais jeune bi ko nar a doon mooy jeune bi tëj la ñu la tëj est-ce que xam nga ñoom Messi ak Ronaldo amu ci kenn ku am temps def yi ngeen di def nii amuñu ko de doo leen fekk sax ñuy tux doo ko gis ci ñoom. doo leen fekk ñu topp jigéen dañ koy puus mais yow nga bëgg a nekk ci jigéen ñi nekk ci caaxaan bëgg a mel ni kay ëllëg xoolal utoo sax royukaay bu baax mais royukaay bi bon bi ngay ut moom ci boppam moom yu bon yi ngay def yow moom defu ko yow léegi yow ana sa xel en tant que doomu jullit yow diñ fis ana sa xel léegi nag lan la loolu indi ñu indi ñu ay nawetaan pour lan la pour distraire ñu <coughs> wallaahi loolu moo yëkkati nawetaan suñu jeunesse bi di nelaw nawetaan yi dañ ko indi woon pour lan jamonoy vacances koñ par koñ ñuy fubal ASC léegi dafa dem ba lan la indi ay affaire u xeexoo bañante rayante loolu la nawetaani jur te xaasum te saajur te xaatul dem ba léegi dañuy rayante mbokk yi xool leen li xew Tëngéej lan moo ko gën a ñaaw ci ab jeunesse ci ab jeunesse lan moo gën a ñaaw ci ay jeunes war a fubal kenn ku nekk di buddi ay balle de fer di ko dóor sa morom koo xam ni seen ñaari koñ ñoo sës ngeen ko benn koñ soo génnee 20 mètres nga dugg ci konam su génnee 20 mètres dugg sa koñ nga jël banta fer fëgg ko ci bopp mu daanu sedd guy ñuy rayante ba àgg ci cinq personnes te am na lu ko ëpp ndax am na ñoo xamante ni foofu la ñuy dajale góor ñi dajale jigéen ñi soo rem ba stade yi da ngay rus ndaw ñi tëgg kurti kurti télé dañ koy cerner kenn du jaar li ñu bëgg def la ñuy def léegi loolu lan la ñu jural jural ñu ay agression nawetaan balaa commencé dañuy agressé su paree dañuy agressé nga xool ndaw ñi yore ay scooter di dawal këf sa yëf ubbi ay oto nangu fëgg ay njaganjaay nangu ay xale yu ko parce que benn ASC lañ bokk ñu nekk ci lu mel noonu di nelaw tubaab yi ñoom taluñ ko doo fekk pare lu mel nii doo ko fi gis de wallahi doo dem jeneef gis fa yu mel ni nawetaan yi amul de ñun seen lépp lañ ko organiser respecté ko toppatoo ko ñu indil ñu beneen mbir xool ma làmb mbokk yi làmb ban intérêt la am boo ko waxee mu mel ni da ngay xas mais dëgg-dëgg njëriñal làmb lor gi ëpp njëriñ bi lor gi moo ëpp njëriñ mbokk yi tey dañuy indi làmb làmb lan la jur njabar kéefër loolu la jur njabar la jur ak kéef mbokk yi xanaa xamoo ne képp ku njabar kéefër nga ku njabar def nga jëfi kéefër te su ma la ci joxe benn di nga am lan mooy njabar nga mën a bëreeg sa morom nga jël bëy bu ñuul rendi ko jël deret bi di ko sotti ko wala nga jël bëy dugg ci biir géej takk ko ba mu diis tëmbal muy dee ci métit ay jën di ko lekk amul fu mu dem pour rien que nga daan sa morom mbër jaral na la nga jël nag dagg tànk yi suul ko muy buusu am na fi combat boo xam ni ki ma lay wax noonu la defoon rek nag ñu dagg ñeenti tànk yi ci cat première yi suul ko muy bëmb dret bii génn ba mu sedd pour nga daan sa moroomu nit pour nekk roi des mbokk yi lii lu mu juraat ñetteel mooy dof la jur ñeenteel mooy soxor la jur ana nan ngay téye ginaar buy dund rendi woo nga damm tànk karat muy yuuxu ñu sànni fële parce que mbër mi dafa bëgg moroomam tànk yi damm mu teel koo daan léegi ay njabarkat yu bon des féticheurs yoo xamante ne kafaru billah wa xaraju ani millah weddi nañu yàlla génn nañ ci ngir mi lu ñu la def loo nga def ko wallahi am na ci mbër yoo xam ni bu ñu leen waxoon rayal ma xale bu jigéen wala bu góor nga daan jaral na ko waxuma ñëpp waaye jaral na ko mbokk yi loolu fan la jëm léegi di indi ci ay dof ay tëgg ay fecc ay rayante mbokk yi xanaa xamu leen ni képp ku takkoo njabar ci torox ngay mujj maa ngi lancé sama loxo di laaj mbër yu mag ya ba léegi ana ban mbër ngeen ci gis mu feebar te ñaanaluñ ko ketaluñ ko am na ku xam wax ma benn ngay wala ñaar mbër yi nekk ci làmb ji ba génn ci làmb ji tey ku ci feebar rek ñu ketal ko dimbala leen ko amul ci li mu jàpp nangam nangam la woon ngand la woon daanaka loolu ngay dégg kon ana njëriñ yu bëri ana njëriñ li léegi fi ngay mujj mooy yu bon ya nga daan def wala ñu la koy defal mooy këpp sa kaw yàlla du seetaan ñuy alal benn baahima ngir bëgg-bëgg doomu aadama yéen bëri yi xalaat leen li ngeen di def ñaaw na sëriñ si leen koy def loo def nañu lu ñaaw njabar dafa xaraam borom bi nee wa ma kafara suleymaan walakin ash-shayatina kafaru yuallimuuna annaasa gi fan yi yéen a ngi ci facebook bi mbër bu taxaw ci tëli digg ba tëgg di sotti ko ay ay kii di sang gisuleen xool ma lii mooy mooy kii nit nekkatu fi dof moo fi nekk di sangu parce que nee nañ ko boo ko defee nga nekk roi des arènes boo ko defee nga daan nangam te seen gàllaaj yu bëri yëpp nag mënta àgg MMA de du àgg Europe de gàllaaj bu ñu la fi liggéeyal Afrique lay boo demee Europe ñu dóor la nga daan kon mbokk yi xalaat leen wallahi xeexuma leen mais mën nañ ko organiser beneen bi mbokk yi ñu indi leen daal musique rek pour nelaw loolu musique tëgg fecc concert concert da ngay toog stade fees dell te yii ma lay wax nii bu ci nekk bërëbu drogue lay doon ci jamono yu bari xale yi dañuy tux nu mu leen neexee yàmba policier sañul wax wallahi li may wax xam naa nawetaan dañuy téye seen drogue di drogaw policier ñemewul yéeg ci kaw police di wax ñemewu ko dafa mel ni keroog dafa dagan dafa mel ni bu làmb amee dafa dagan dafa mel ni bu nawetaan amee def lu bon dafa dagan dafa mel ni rey nit dafa dagan dafa mel ni agression dafa dagan nga bokk ak nit benn koñ nga rey ko looy wax yaayam looy wax papaam looy wax ay frère am subhaanallah borom bi nee na afala taaqiluun yéen jeunesse bi xanaa du ngeen xelu ana seen xel maa ngi leen di laaj ñaari question ban dëkk ngeen gis mu avancé football tax mu avancé ku ko xam wax ma ko demal fu la neex ci àdduna bi ban dëkk bu avancé football tax doo mën a Brésil de ndax bokk nañ ci ñi gën a sonn donte am nañu dara seeni tool ak yooyu ñu ngi ci mais football joxu leen football du développé dëkk football du développé dëkk amul bëre moom doo ko wax xam nga bëre moom Sénégal la am Sénégal ko ne xam doo sax nekk di di kii mbokk yi ndax musique avancé na benn dëkk xanaa doo ma ne Jamaïque de doo wax loolu de musique avancé lu dëkk futbal avancé lu dëkk par individuel bi kenn par kenn kenn lay yëkkati bu yëkkatee kenn ñëpp foog ñu foofu leen yëkkati benn benn benn benn benn disque d'or ñu ne noo kii mooy ngand yëkkati ko ngeen nàngam ñëpp jóg ñi dañuy musique football benn ballon d'or ñëpp la dañuy football léegi ñu endormir leen nelawloo leen na ngeen nekk di nelaw ci jamono boobu mbokk yi mbokk yi ñaata ñoo dee ñaata ñoo dee ci kii clandestine bi ñu doon wax ni xale yu góor yi ñaata xale yu góor Sénégal xam nga xam nga nombre bi lu ñu leen ko wax de lii dee ci ay jeunes africains sénégalais notamment ëpp na ay 5000 jeunes yu dee ci ndox mi lan moo leen rey Barça wala Barça am wala dee moo leen lan moo tax lan moo tax du ngeen xalaat ci loolu yéen jeunesse bi lu tax du ngeen xalaat ci 23 mars bi passé ñaata jeunes ñoo ci dee léegi 23 mars 14 jeunes plus 5 ci stade bi. ak li ñuy agressé boo ko calculé mën nga ni chaque année wala chaque mois li ñuy rey ci ay sénégalais kenn xamul jeunesse bi ana seen xol ana seen bëgg-bëgg ana seen nekk sénégalais du yéenay bàkko un peuple une fois yéen a koy bàkko pourquoi un peuple di rayante pourquoi ay équipe navétane di rayante ana responsable yi ana responsable yi fan la ñu nekk lan la ñuy def ba léegi ñi dee ci 23 mars bi tey àdduna àll baa ngi ne seen ndaw kenn waxut te ñépp xam nañ fi mu jóge waaye kuy wax ku wax de loolu moo waroon nekk seen préoccupation yéen jeunes yi ngeen di xalaat ngeen di xalaat di bàyyi xel bul bokk mukk ci fami qaabil jeune na moytu bokk ci famu qaabil képp ku rey nit te tey ko bokk nga ci fami qaabil qaabil bi mu reyee frère lan la wax yaa waylata ajastu an akuna misla hada guraab مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين borom bi ne xaabil bi mu reyee frère yow nga téye sa frère bu ngeen bokkul benn koñ ngeen bokk dëkk te nga jël bant fëgg ko sa mokk nga buddi ay barre de fer tëgg ko nit looy wax boo demee yaa waylata ajastu an akuna misla hada al torox naa alku naa tey damay mel ni baaxoñ borom xam-xam yi nee nañu baaxoon ñaari mbir nekk ci moom ñuul ak weex mooy dootoo ñemee génn dootoo ñemee génn da ngay am contrainte da ngay rus parce que ki dee yaa ko rek nooy def papaam nooy def yaayam nooy def sa famille wal iyaadu billah avec ça ñu toog ñun topp football rayante mu am ñu ne ci kaw di sàcc alalu Sénégal di ci def lu leen neex poste ngi nii bët ci démb ñaata milliards lañ fa deqees ñaata milliards poste mënuñoo fay sa waa IPRES mënuñ ko léegi ñun ñu ngi fiy tëdd di nelaw gars yi ñu ngi ci kaw di détourné alalu réew mi di sàcc pétrole bi di jaay zircon bi di jaay gaz bi di jaay lépp su ko defee nag gouvernants yi nekk ci kaw ñoom li ñuy bëgg mooy yéen ngeen na ci nawet ni rek ngeen na ci làmb yi di reyante di kurti kurti ñoom ñuy sàcc rek di yóbbu ñuy sàcc rek di yóbbu am jeunesse bi koo ci yee scandale yi am ci Sénégal sax pour ñu xam ko day jafe parce que taruñu ko parce que jànguñu ñoom ñu jël seeni doom yóbbu leen ñu dem Europe jàngi bu ñu ñëwee yilifaat leen bu ñu ñëwee yilifaat leen kañ la ñuy yeewu afiqu ya shabab la jeunesse yeewu leen Afrique pour ngeen développé ko yéen jeunes yi yéen a yeewu xam leen seen avenir xam ngeen li ngeen bëgg <coughs> pourquoi agression góor du agressé waxuma sax jullit mais góor du agressé yore sa moto dawal këf yi fu jàmm këf sa saagu yaay këf saabu sa rakk bu jigéen wala sa mag bu jigéen dóor sa frère mu daanu dee na wala deewul xamoo ci dara nga yóbbu di lekk loolu ak fierté non fiere fieroo de wallahi fiero góor du agressé doomu jullit du agressé wàññi leen li ngeen di def yéen jeunesse bi wàññi leen li ngeen suñu gouvernement nag mooy le grand responsable ana justice ana mu ana justice ana suñuy kilifa ana société civile dañuy toog nii rek di fe ñii mu nar a rek rayante bu ñaaw bi rayante bu ñaaw bi bu fekkee ñoom dañuy rey jeunesse bi di rey loolu moo leen arrangé kon mbokk yi jeunesse bi maa ngi leen di yee allahuma ahdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt waqina bi rahmatika charra ma qadayt mbokk yi wallahi laaye biir yi li ma ci jublu rek du dara même bu wax bi diisee lii yonent bi waxoon nag uballigukum risalaati rabbi wa ana lakum nasibun amin qumu ila salatikum yaxfirullahu li wa lakum lisaani muslimina fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim